asalaamaaleykum askan wi ñu jottali leen lim bi ñu am ci mbas mi ñuy wax Covid 19 fii ci Sénégal ci talaata tey bi fukki fan ak juróom-ñeent ci mois de mai 2020 jot nañu yi résultat ci juróom-ñeenti téeméer ak fanweer test yi nga xam ne réalisé nañ ko juróom-ñaar fukk ak ñett dellusi nañ am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-benn fukk ak juróom-ñett nekk nañu contact. mooy yi nga xamante ne ñoom la suñu bërëb liggéeykaay yi di topp te di leen saytu juróom ñoom moom lañuy wax cas communautaire nekk ci bërëb yi Grand Médine ci Dakar fii am na benn Dakar Feder am na benn Yoff fii tamit ci Dakar am na benn fële ca Touba am na ñaar juróom fukk ak juróom ñaari patient mooy ñi nga xamante ne tëdd nañu ci hôpital saytu nañ leen seen wér-gu-yaram amatul benn doomu jàngoro wër nañu juroom ñent ka grave nak ñu ngi ci suñu bërëb yi ñu wax sewetas moy service réanimation ñi nga xamne ñoo ci dess teud ci lool hôpital yi ñu ngi and ak tan ci bëssu tay bi bi mbass mi dalé dugg Sénégal ba légui ñu ngi tollu si ñaari juni ak juroom benn témèr ak fukk ak juroom ñaari ka yi nga xamantene and ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yoyu junni ak témèr ak fanwer ak ñett wër nañu fanweer génn nañ ci àddina ci lalu hôpital yi tëdd tey jii ñu leen di faj ci ay doomu aadama ñu ngi toll ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett Sénégal nag suñu dëkk mu ngi am nakar ak tiis di wax ni amaat na ñaari dooma yoo xam ne génn nañu àddina benn bi moom mu ngi toll ci juróom fukki at ak ñett mu ngi dëkkoon fee ca Grand génn àdduna démb di altine di fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai 2020 bi nga xamante ne 20 heures mooy 8 ci ngoon jot na fële ca centre santé Nabil Choucair ca coté Patte keneen ki tamit moom mu ngi am juróom-ñetti fukki at ak juróom-benn mu ngi dëkk fii ci dakaar làkku na bi nga xamante ne mooy bésu fukki fan ak juróom-benn ci mois de mai moom nag ci li ñu wax structure privée fa la làkkoo fa la génnee àddina. ñoom ñëpp bi ñu leen seetee gis na ne dañu àndoon ak doomu jàngoro yi ñuy wax Covid 19. ministère de la santé et l'action sociale mu ngi jaar seen i mbokk mu ngi jaar askan wi di ñaan ñoom ñaan ñëpp yal na leen yàlla xare àjjana di dooleet itam di fàttali di ñaax askan wi ne leen bu ñu tàggoog digtal yi nga xamante ne jox nañ leen ko ngir mbas mi mun a génn ci Sénégal ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaam.